loolu ma sawaj te bu fekkoon ni yàlla dana yonent bi ku jëbbalu ci am ngërëm jërul mu naan ku jëbbaloo ko a bi yàgg waaye ak ku jëbbal comme kay fu waaye jëbbaloo rek am ngërëm am nañ ñu jaayantee fatxu màkk te yàlla dana la génn ci ngërëm bi nga jaayantee ko day bi rek la saxal ñoom ngërëm cheikh bi néewu nga ku jëbbal nag da ca bokk waa Ndakaaroo yi am ngërëm waaye waa Tuubaa nañ xaar déedéet dan na ko rek képp ku jëbbalu ci yow am ngërëm li yàlla Serigne Saliou day mbirum Serigne Touba Serigne Touba la kenn xamut mbiram di di gàttal Serigne Touba feeñal lu kenn xamut bis bu feeñal nag jëm jot lan moo la lu ni toll la kenn mës a dégg baa nga xam ko te ci seen biir daje yooyu li ci xew ci kiimaan bari loo xam ni ndax nee naa la bi ñu dajee ci seen diggante watiir boobu mu nekk ci toolu bàyyam bi ak seen njille mu baax ma Serigne Saliou taxaw. may ko mu yegg ci mu ñëw nuyoog moom seen nuyoo boobu yi mu nuy nettali saa su ne te saa yu nu koy nettali mu mel ni tey lay doog a xew ngeen neex bu nuy neex la ngay xamal ne Serigne Saliou dikkam foofu seex bee ko tax a jóg mooy rendiw bi mu ko doxaat waaw bu fekkee ko nekk juróom ci at boo xam ne lokku njuur gog gone la wax ni moo ko tax a daw topp ci wati Serigne Saliou waxtaan ak moom ba noppi ne ko damaa jëm sama tool yii di gën seen maajur waaye ngoon dinaa jëli si ci dëkk bii ndax xam ngeen si seen kër bala des la jur mun ko ba ngoonee ngeen fekk ma fa rendez-vous bi mu koy jox moo leen xamal ni bëgg na yëfi doon asifu kon moom dafa yittewoo yëfi Sëriñ Saliou dikkam foofu loolu yëpp tax a jóg daje gi mu moom nag kër Baye Isma Diouf mu tàggu seen baay bu baax ba mu bàyyi leen dafoo ba bàyyi leen jafe ndax am yu xewoon ca dëkk baax ni mu koy def daje ji ñëpp xam na waaye bàjjëlu Sëriñ Saliou dugg ca ba bàyyi ku ànd ak wax-wax ji rafet ci Sëriñ Saliou ñooñu day dégg naa ñu baax la ñoo ngi sant nag dégg naa ñu baax la nga xam ni loolu loolu mu wax rek mbirum yàlla bëgg leen a bàyyi yi mu def ba mu yeggee nee na bi ñu yegg see rek daa fekk Serigne Saliou di attaaya Serigne xel di kaasu la suukar ko defar ko jël kaasam ba mag nga toogoon ñëpp ku leen di waaj ngir bëgg a jot ci kaas mu leen di xàllal boppam te loxo yi gerte ba ko ko jàpp jëlaat beneen kaas jox bàyyi jënd ña ko def mun leen jël li foofu nag damaa wax ni xam nga sëñ Saala dara dëdul asaan dara dëdul asaan dara la tax mu ko di am lo ci jàngat ma am ay jàngat nag ñu ma ci def jëm di mbirum Serigne Touba moo xam ni mbiram la moom ci Serigne la wàccaale ndax xam nga kafeeg attaaya Sëriñ Tuubaa leen ëndaale ci géej mu mel ne ko xare woon boo gañee dangay am yooyu ëndaale mu ne ay bagages yi boppam yooyu mu ëndaale mooy kafe ak warga joxoon na ko ko ci géej waaye bi mu ñëwee ci géej gi jógee ci géej gi ñëw ci réew mi ba dem gànnaar jógee fa dem jéem jolof ba ñëw njaareem daa toog njaareem ba atum bam sa sin bam sa sin mu koy mille trois cent quarante ci ginnaaw gàddaay waaye ci atum tubaab 1924 25 26 27 ñetti at nga ciy teg Serigne Touba def secret bi atum bam si singoo gii la waxtaan moom Serigne Touba ni yàlla jëmmi boppam daa am ñu mu ko mayaat ci ataaya te bam sa singoo gii mooy at ñu mu ko mayee Serigne Saliou ñu ne ko dëggalal ni léegi yaay Serigne Saliou ndax da ko doon tax ngir doon ko ginnaaw bi ko yàlla wane xam la mu doon waxal bi la hilma as saxiiha wal amal ak saalihan lazi yukallilu amal di ñaan loolu yàlla atum bam sa sin nag ci la ko yàlla ni ñaan gi nangu na mën ngaa bind rek nag léegi ne yaay Sëriñ Saliou ci la bind xasiidu rabbiihu bam sa sin bis bi ilal sa sin gii ci laa jële sama man Sëriñ Tuubaa mooy dikku Sëriñ Saliou ci biir xasida googu yi te la waxee lin xaaratil ujjuur wal masaalib bi tey woon gis bi wa indi Saliou sa sin googu yi moo ko joxe Sëriñ Saliou nag dama ko joxaale attaaya yi ma di ba Sëriñ de laataa mu ko wax dafa wax ni boo fi majlisihi booba jotaay bërëb salaatil xasri ginnaaw julli takkusaan la lii ma lay wax demal di majmuhatun mustamilatun xalaa ajwibatin wa wasaaya bu Sëriñ Tuubaa numéro 7 ndax ay numéro la numéro 7 ba da ko ca fekk daanaka mën na ñetti gàllankoor boobu dégg Sëriñ Tuubaa boo fi majlisihi ci jotaay boobu bërëb salaatil xasri ginnaaw julli ginnaaw julli takkusaan loolu it saaminu xasrin fukkeelu fan la. min rabbi saa bi jërëk ci gàmm sëñ Tuubaa dajale mag ñi ginnaaw julli takkusaan yow ma gis ne ni bisub altine fan ci rakkaati gàmm ca njaareem atum mbam 1924 sëriñ Tuubaa laata mu leen di wax li ko yàlla wax jox ci attaaya te mu àndaale dikkuk sëriñ Saliou sëriñ Saliou ñëw di firndeel loolu ci jëflante ko Cheikh bi ci seenu daje ci nga xam ne dara du ci asaan loolu laata mu leen koy wax da wax ni bam sa sin gi ma ko jox joxaale ba ci sëriñ Saliou la ma njëkk a ay may daañu jël baaraamam bu tedd bay nuur baaraamam nit tëdd ko teg ko ci genn siinu bam sa siin yàlla dane joxaale naa ci at mii ma la jox Serigne Saliou sukkurun bilaa sikkaa benn ñambat léegi ak cant rek dara lu defe lu dese bi ban di ko jàmbat dootul am lépp baax sant rek muy sukkurun bilaa sikkaa yëpp cant du ànd tutuk ñambat muy muy siinu bam sa siin boo gii mooy at mi geneen siin gi sëriñ bi jël baaram ba teg ci geneen siin gi ne siin gii mu ne ko defal naa la ci saqiyun bilaa samain wala xatasin defal naa la ci ak man bi ci leer yow sëriñ Tuubaa gu marug baatin duudu topp ak marug saafir ci biir mi gën a gaaw na nga xam ni kii daal nga léegi mu dal looy soxlaa ci amul lépp daje ci yow muy saqiyun bilaa samain wala xatasin mooy siinu ñaareelu bam sa siin Serigne Touba jël baaraam yi teg ci miimuk at mi muy bam sisi yàlla ne ma at mii ma la joxe Serigne Sall joxaale naa la ci mulkun laa yan salibu wala yan hasilu nguur ni dootul tuxoo ci jógee ci yow mukk te dootul ber dootul wàññiku mukk mooy mbirum yàlla dootul génn ci yow boo gisee Serigne Touba ne Serigne Sall mooy mot seen liggéey bi dara dootul topp ci Serigne Sall leneen dootul feeñ luy feeñati Serigne Sall boo koy feeñal lu loo Serigne Sall lu mu feeñe lut nat na feeñ barke Serigne Ba lu mu feeñe lut na feeñ yëpp na yàlla lu ci jub baliwu dara du ko wut du fi jub mukk wax na ko ñëpp maag yéen ba faw te dama tàqalikoo yéen su ma leen jiitoo dinaa taxaw nag leen su ma leen gis dinaa dëpp jël si leen waaye dama tàqalikoo yéen ba faw tayle wut abale wunu dénkaane wunu moom ñu na wax na ko ñëpp am na maa ñëpp la wax daane wax jooju nag ñëpp dugg nañ ci ñëpp muy laa yansaribu wala yanxasimu moo tax Sëriñ Tuubaa huwa allazi wajjaha li maa astahi min mulkihi lazi ilayya yantahi na ngeen yëg ni yàlla mooy ki nga xam ne lu ma bëgg mu defal ma ko waaye maa leen di informé ni yàlla nguuram googu ngeen di dégg lu mu cay defati ci man la koy defee Sëriñ Tuubaa fii ci la koy defee ndax da ko Sëriñ Saaliw wa dégg te lépp moom kon liy feeñee la ci biir Serigne Touba lay feeñ ndax Serigne Saliou la Serigne Touba terale yàlla Serigne Saliou da ko wàcc ci biir Serigne Touba Serigne Touba wax ni may Saliou te luy feeñee ci Serigne Saliou moo tax mu ni yàlla gi ngeen lu muy feeñal di ci man la koy feeñal moom yàlla àll si mooy ki nga xam ne wam jëxalii dara ma jubale man Serigne Touba maa astahi lépp lu ma sopp man Serigne Touba min mulki yi ca nguuram nga àll si ismu mawsul la nguuram ka nga xam ni ilaa yantahi ci man nii lay deetaloo luy feeñate ci man lay feeñ Sëriñ Tuubaa moom la wax loolu moo tax mu ni mulkun laa yansarifu wala yanfasilu mooy mii mu pam sa sit ko dëggal na digg Sëriñ Saaliw gi aji mu ni baraatun min alxisaabi addunyawiyu wal uxrawiyu yàlla nee na ma baaw pam sa sit defal naa ci nga seeti wécc yow Sëriñ Tuubaa ci xisaabum adduna ak xisaabum alaxira daa ëndaale set ci xisaab ci adduna ak alaxira xam nga ne Sëriñ Saaliw ëndaale ngërëmul yàlla da ngërëmu yàlla ko am kenn du la isaab jàll ne kenn du la isaab jàll axira comme loolu firi na ko firi mu leer yàlla ne ko bam sa sin googu nag attaaya dama la ko cee joxaale joxoon naa la ko ci tukki ba waaye dama la jox ay may yooyu ci at nii la dikkaale àndaale ak Serigne Saliou daal ko bindal attaaya Serigne Touba far bam sa sin gi mu bindoon yi mu bind attaaya alif la daa toog alif ya Serigne Touba jël baaraamam bi daal koy ci yaaw ataay bi ci dëkk moom Serigne ngir nga xam ni Serigne Saliou maa ngi gi rek lam ko fekk nga bàyyi bu jub moom Serigne Saliou mu jël ataayam di ko jox moom seex bi ngir nga xam ni dara moom moom moom moom dara mécon sa Serigne Touba ne yaa ko dëkk yàlla dane ko al yumnu wal yusru yaqiinan defal naa la ci barke bu sax dàkk te barke yëpp Serigne Touba mbir mu ne barke bay solo sax lu barke ba jeex la ki des coono wala yusru ak jàppandal li jafe woon lépp jàppandal naa la ko nag ci yaawu ataaya yaqiinan ci kóolute nag laa wax ci lu wóor loo xam ni dara dootu ko jafee barke boo xam ni barke la ni dootu ci topp mukk ci maa la ko joxaale ci yaawu ataaya ji ndax lu jafe àjjana naka jekk daa jafe ndax jaam mën lu ko ko may alxuraan sax nee na façon na yassiruhu lil yusra parce que yéen na yàlla rek ci mën a dugal nit moo tax mu tudde ko noonu façon na yassiruhu lil yusra mu tudde ko sawara yéen tamit ne laa yadxulul jannata ahadun bi a'maalihi kenn ci yéen ay jëfam mënu ko dugal àjjana yërmande yàlla rek dafa mën a tàmbali jàmm kon boo dajee wut ak yërmande suñu borom di jéem a jëf lu yóbbu àjjana yaa ngay jéem a def lu jafe jàppandal lépp la jafe woon mu ñëw jàppandal àjjana ci lu toll ni ku la gis de màgg ne ku la xam de màgg ne firi na boppam ngërëmul yàlla ni mu jafee ba tax ngaa ñene ci xunt ya alxuraan di nettali saxaaba yi lañ ca nag lil fuqaraa il muhaajirina allaziina uxrijoo min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwaana wa yansuruuna allaha wa rasuulahu ulaa'ika hum as-saadiquun coono boobu bàyyi seen i kër bàyyi seen i soxna bàyyi seen i njaboot bàyyi seen i capital bàyyi seeni alal benn mbubb ngay sol benn fas ngay yéeg départ fekki ko Madina même jaral na la ko ci yoon wi nag gaynde mën ngaa dajeeg moom mën ngaa dajeeg bukki it ba tin baa ñëw war a fàtt yooyu yëpp nga mën koo inquiété te boo demee du tax nga ko da ngay ànd ak moom dugg ci biir toolu lislaam yi di xari te mën nga cee rotal sa jox leen ko loola yombul bu kon bu Serigne Saliou ne ku jébbalu ci seen am ngërëmal yàlla lu yombee noonu bu Serigne Touba day jàpp ndal Serigne kooku nee na mooy ci yaawu attrait alif bi ci digg bi sëriñ tubaab yàlla ni ma axtaana mu yegg na ci jotaaga muy taw fiiqan du taala may nanu nun sëriñ tubaab foofu rek da ngay taxaw yëg ni may yàlla yëpp alif ak gi indaalee na ko sëriñ tubaab may yëpp ndax sëriñ tubaab nee na may ya yàlla joxe ñëwuma di jël yi bàyyi fa nii ku ne am nga boo jël muy muy may bu rëy gooy tamoo man nag dañoo damaa dajale lu nit mës a lu kenn mës a jël dajale lépp ba màgg ci ak caabi ya jëlandoo ko xustu mawaahiban ilaahi dorra bàyyuma fa dara moo tax nga dégg ma naan xasaa in rabbi fatixat lii li xayri ya wa uxra wa ba saqu loolu nag nee na alifu alifu ataaya moo fa bàyyiwu dara taatombe gi ci digg bi Sëriñ Tuubaa ni muy taatombe ak ataaya ci atum bam sa sin googi مو أدري توفيقا منه تعالى توفيق سنو بركة مو ده توفيق لك أبصر يلا مم لو تم أم دامو هو توفيق لسك وهي بوقة خسي أم توفيق أم دل البلس هو دارا ده توفيق يلب سريت ما عمنا فم جانجلني كو يلا ما يون أب جتاي كي بفم مو أجاس كلا نك جتاي بو مكان تك بكو بان غيرا وهي لو أخم لفكو دو يسو بيت مي منا نيار مي منا نيار نيم نيانا توفيق بس بو عمي توفيق أمالا غلب waaye boo amul tawféex loo mën a am amagoo lépp ndax dese nga tawféex tawféex yi lépp ndax sunu borom la mu doon misaal naa ko dem day ndimbal ndimbal lu sori ak matam daa luumaate ak matadik nit doomu aadama sunu borom kaweem daa luumaate suñu suufee te léppam ndimbal la te kenn mënta ñàkk lool ndimbal rek la ñëpp solo ba ci yonente yi innaa la nansuru rusulana wallazina aamanu fil hayaati dunya wa yawma yaqumu l-ashhadu xataa yaqulu rasul wala si ne amanu ma matee nasrullahi ala inna nasrullahi qarib kenn a ñàkk ndimbal loolu amul te ñëpp soxla sori gum sori nag tax na loolu lu soxla ñëpp mënaguñ cee jot sëriñ damaa ni lu sori loolu yi tawfiq la yàlla def muy lonk nga koy lonke fa mu nekk ñëw daje na ko yow kon koo amagul tawfiq moo la jot ci ndimbal la kon ndimbal ak tawfiq benn jàmm ta ñàkk da boo amee tawfiq am ndimbal kon tawfiq la ku ne war a wut la ku ne war a soxla moo tax borom xam-xam yi ne kullu sayin yaxtaaju ilal hilmi lépp lu am lu ne day aajowoo jëm ca xam-xam waaye wala xilmu moom yaxtaaju ilal tawfiq xam-xam moom ma ngay aajowoo dem ci tawfiq am na ci borom xam-xam ñu ne ku jàng tiir yëpp ba jeexal ko boole ko di ko jëfe am tuuti tawfiq boo gën tuuti tawfiq tawfiq rek a mat sax Sëriñ Tuubaa nee na ngërëmul yàlla tawfiq lay mën a jotaleeg moom tawfiq yaquudu nii tawfiq wal ilham ilaa ridal lasi lawal ifham Sëriñ Tuubaa ne tawfiq moom yi kenn mënta ñàkk man a Serigne Saliou li mu defal te def ci mu defal na ko ci kii kii moo ko defal la it moo nu waxal boppam ni mbiram yépp su ko dee fàttali ko ak cat taset lay dem mu bis bi mu dajeeg Serigne Saliou kon su li nu am lépp bis boobooy cosaan ndax kullu shay'in yuraddu ila aslihi mbir yëpp dañ koy delloo ci cosaan noo ngi nii dañoo siyaare si seex bi te siyaare ko li ni ko Serigne Saliou wax dégg nañu képp ku la siyaare dana ci jële ndimbalul Serigne ak tawfeexam ak xam di te ndimbalal Serigne Touba ak tawfeexam siyaare jëmm jële ci lu ñu toll ma Moustapha tey Serigne Saliou ji ji mu feeñal ci seex bii moo tax mu mën a andi lu mel noonu Serigne Touba mi moom siyaar wàcce ko fi andi ko fi ndax siyaar daa bokk ceeb taalibe Serigne Touba moomu taalibe moo ko xam moo ko fi andi moo ko wàcce moo ko jàngale moo waxoon ni as siyaare du siyaare ku siyaare ko mat a siyaare ji dolli ko imma saahiran wa imma baatinan ci lu feeñ ci commencé siyaara ji rek képp ku jub di ko siyaara ji te mooy moom lépp luy tax nga dajeeg mbégam nanga ko yóbbaale siyaare moom bu ca sàkku dara lu dul mbégum ki ngay siyaare ji moom sëriñ mbég moom moo féete kaw lépp sàkku ci mu bég rek moo tax mu ni wa min aadaabi siyaara ji musaaxabata maa tasunnu annahu yasurul mawsuura bokk na ci tëj gi ku jub di rek lépp loo njortu ne njortu ndax mënoo xam lépp loo njortu ne mën nga cee dajeeg mbégum sëriñ bi yóbbaale ay xéewal ay koppar ay yëf-yëfaat ay nangam loo romb ah, lu rafet rek lu baax loo njort rek ni lii daal bu ko yëddee sëriñ bi man na maa jural mbégam sëriñ Tuubaa nee na ba ko fa ba yóbbaale nga dañuy jeg mbégam ndax mbégam moom rek lay jag sëriñ Tuubaa moo xam ne ngay jag moo tax mënu koy wax sëriñ Saliou ne ndax sëriñ Tuubaa ay étape la yi muy feeñal ca bu njëkk dañu woon commencé aare mel nga ne ku aji umra mooy fa kullu man saara nii fa ka annama xajja maxtaman mu dem bam soog mu feeñal la neen ne ku ma siyaare tàqali ko nga bàkkaru at dakal axeer ca sarsara inna lazina ila sarsara saara Serigne Saliou muy dayi Serigne Touba andi lu kenn mës a xam muy képp ku la siyaare jëlee ci ndimbalu Serigne mi nga wàccee taawu ataaya ja mu des alif ga يلا اني مسيرك تبع دفع النارك اسخب الله المفاسد واقدار الى خيرنا مولم يقول يد الف اتاي بني كي موكو ديغاس سان دار دوتو ديخ بلي باي باخ لي يين نخ ييب سان لي نكو مو ديم ديم ديم تي كنن كود يو سيرك تبع سيرك فاليو نينا لا اب صفان ني كود تمو صفان داي ني كود تيا يالا لو باخ رك فري صفان امو فا motax ban neexo yaa tere nangam ak nangam ak nangam dana yooyu tur nu man dama ne li yàlla tere laa tere ku ma fekk may xam nangam bari ko tere fu ma ko war a xamee moom loolu ci moom moo tax yàlla ni ku def benn bu baax ma tegal la ci sama juróom-ñett muy fukk ku def benn safaan nag sa safaan booba nan lay jox ndax yàlla amul safaan Sëriñ Tuubaa dañu alifu ataaya boo dàq lépp lu yàqu woon ba lépp baax ba defamu lépp lu doon nëx nëx mu dàq ko mu dem ci keneen ku man te dégg nga mu mu mu waxal boppam ni lépp xaalis dañ ko jur wala masaalik di lépp dajee ci man te lépp day ñañ bit dañ woon kon loolu day firi boppam kon loolu mooy attaaya ci ci wax ju njëkk ji li ma la wax nag ba nga def salaat bi nga xam ne ginnaaw la yow ma gis ne ne bisub lëndi la xaasiru min min rabbi ci saan yi fukkeelu fan la yi ñi rakki gàmm la Sëriñ Tuubaa waxtaane ci atut ba mu sasit mu am beneen jotaay nag mu waxtaanaat bu ko yàlla dolliwaat ci loolu moom attaaye moomu Serigne Saliou Cheikh bi fekk ko mu di ko def keroog ba muy dajeeg moom kër baa gis nga jiw mu di ko ko jox Serigne Touba beneen jotaay mbaj na suñ aafirun beneen jotaay boo xam ne yowmul ahadi bisub dimanche la bisub dimanche la ci gañ mu ni assaalisu wal hisriina min rabbi xëyni muy ñaar fukkeelu fan ak ñett ci rakkaati gàpp encore ci atub comme sasin ba ñaar fukkeelu fan ak ñett ci rakkaati gàmmu mooy weer woo weer la ka topp bii rakki gàmmu la woon bii rakkaati gàmmu bee kat bisub altine la woon bii bisub dimanche bee fukkeelu fan la woon bii ñaar fukkeelu fan ak ñett sëriñ Tuubaa ne yàlla li gën a bind ma nee na ma bind ci attaaya mu bind ko mu ne ko yaa ko njëkk gi defal naa la ci yaqiin yaqiin mooy kóolute ngëm bu amoon fu muy yem dañ ne yaqiin yem yaqiin nag ku ne da nga koy ñaan waaye yàlla rek mën a tawfiixal ab jaam defal ko yaqin ci ngëmam moo tax sëriñ Tuubaa ni jéem leen a rafet jot ci seenub sëriñ waaye yaqin moom kenn du wax ni am naa xanaa nga dem ba wóorul waaye yaqin moom loolu lu jafe la na yàlla rek ko war a dimbali nit sëriñ Tuubaa ne yaaw ataaya jooju yaqin la ëndaale alif gi ci diggi mu moo tax ma ngi leen sëriñ Saliou mooy yàlla ndax nangu moom mbirum yàlla waaye kii ki wax seex bi ne ko Serigne Touba da laa nangule nuñ musta nangule kenn num musta nangule kenn wëlbati ko ne ko nangul na la sa jëf yi weesu nangul leen jëf yi ngeen toll nangul leen jëf yi dikkagul ah waaw nee naa leen waaw lu dikkagul comme fi fekkut noo koy nangu xanaa bala nga ne naam ne fi Serigne Saliou wanee ne ki nu nee ni du fi jug wanee ne ki nu nee ni du nangu rek problème yàlla la nangu jaam day jëf te ñaan ñu nangu ko waaye nangu la yaay kii jëfloo nit ñi moo ko ci war mu leer jëfloo di sama liggéey te damaa xam xàmmee naa jëf yëpp mu jaaw kenn ak moromam kooku wane na ne mooy suñu borom kuy jëflu nag faaw ni di la jëfal moo tax suñ faaw nga nuy ñaanal suñuy xéewal di yokk ndax ku a jëf faaw nga te ki nu àndal jëflu te jëf moom mëni su koo def te amoo loo jëfee yaa ngi ñuy xéewal nag ñu ngi la ciy sant ñaan dool nen ni rek te ko sa sa dool la waaye wax dara mu dugg say nopp daa baax dégg yaa ngi dégg loolu muy muy ijaabatul alif googu nekk ci ci jaataye ci ñaareelu ci tay sëriñ Tuubaa ne taa gi moo xam ne tawféex ñëwaat na ndax tawféex daa mën ta ñàkk moom déggoo sëriñ Tuubaa ne tawféexu rabbi nasaha biiral naka faj nasaha tawféexi sama borom moo nekk teeni neen léegi ngeen dégg si gala gasal di firi firi mu leer mu neex moomu mu set mi teeni neen teen boo xam ni amul dara ci ndox nga ñëw fekk mu doon kekk nga yër ko ba mu wóor la leen ndox sëñ boo amee taw fii boo bëggee ndox fekk la ci neen def na ak sa dem dégg nga ni ko leer gàddaay na dootul dégg loolu taw fii ko def kon taw fii xëy lépp tawil lanaa xumranaa sahih lanaa badanan ويهب لنا رشدا وتوفيق يا الله توفيق مطلق سيد تباني داو داو داو اتحي اللي وقتنا توفيق ادب دي اكرام تراغا كو صح داك تراغا رك تخم ني تراغا يي مو في نون سيرين سالو دانو ترال teraanga yi daa bari waaye naa la jox benn point boo xam ne lu nu sant Serigne Saliou ci bis bii dëgg bis bii lu ci def ci lu nu lu nu mënut dëgg xam nga lu tax waaw nun ñii ñëpp ñoo maase gëm ni Serigne Saliou wa maa maasawul ci gëm ni Serigne wu yam ba nu gëmee ne moo yàlla xanaa ci leen gëmaale ni moo fa yabaloon aadama kon ndax yàlla fa yabal aadama ña aadama àndaloon ko ko boole aadama kon du yàlla wala lu tax Serigne Saliou génne wóoru woon booba def na ñooñ aadama bu nu defoon ñooñ aadama ñu sant ko di waaye mu denc doo rek wàcce Moussa ak wu ñoñat boole wu nu jëne buñ ca bokkoon sant waaye mu denc doo rek génnee ko nu maag Ibrahima wàcce ak wu ñoñat te ñoo gëm ni moo ko wàcce waaye taxagut mu boole ni ci ñoñ Ibrahima mi ngi nu denc rek yaa ngi dégg Seydina Isa wàcce ak ñoñam suñu ci boole woon it nu sant waaye génnee ko nu de mi ngi nu tardeel rek denc ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wàcci indaale ñoñam muy saxaaba yi ku ca bokkoon sant asxaaba rasulillah inni qadimahu muhibban lakum yaglaw ku ci bokkoon sant waaye génn ko nu de mag mag nu denc rek nu tardé ba borom Tuubaa seen Xaadimu Rasuul ne cëpp génne gunu ba tey mm. mu denc na rek waa ku bokkoon te mag nga doo sax ka wax ni ku jébbalu ci man ku ne dara dee ñaari saxaaba nga yor bis bi nga jébbalu kooku yi mag nga toog ca seenub saal ca ginnaaw péex ma di waxtaane xutbu samaaniya Seex Abdu Xaadir Jilaani ak Seex Ahmad Tijaan ak nangam ak nangam ak nangam kooku ku man sëñ Tuubaa ne tell permis ne ana ñu toll foofu Seex Isaa da ko noonu la fere mu ko lu ngeen di waxtaane mu mu ne ko ana kat ci yéen moo bëgg ma wàññi dara jàmm ba mu tolloog ñoom ana kat ci yéen moo bëgg ma wàññi dara jàmm ba ñoom waaw ku bokkoon te ñooña seex bi doo sant ku bokkoon te ñooña doo sant bëggun daa njaay waaye taxagul mu génn nu Serigne Saliou nu làq fam nu làq rek tardeel noo rek ba Serigne Saliou ne jëpp nag danoo war a sant Saliou ngi mi ngi nu denc rek làkkatu ba moom mii nay mbili gi ne jëpp wàcc ca mbubb njëkk ba dama ne bu nu boole woon foofu nu sant waaye génnee gunu ba tey de ki Sëriñ Tuubaa ne yaay dëgg dëgg sama jëmm yaay mottali liggéey bi bu nu boole woon foofu it nu sant waaye mag nu tàndeel ba tey génn gunu ka wax ne maa ci biir tànn Sëriñ Tuubaa bu nu bokkoon ca tànn booba laa wax sant taw bi rek waaye ba tey génn gunde ba feeñal seex yi ma ne ko jàpp ci yow nag muy dëkk dëkk jàpp ci man donc loo génn lu génn waaye loolu am na loolu. waaw. Serigne Saliou dinu denc dinu denc ba jébbalu am ngërëm gët mu denc ba jébbalu am ngërëm gët mu lëkkaloo feeñal. dinu denc dinu denc ba gis dem àjjana xew ak xam dem àjjana mu lëkkaloo feeñal. dinu denc dinu denc ba makara jam feeñ ñu doog a feeñ. di nu denc di nu denc ba damaa mu sukkiri feeñ di doog a feeñ di nu denc di nu denc ba maa yàlla xew mu doog noo feeñal di nu denc di nu denc di nu denc di denc ba damaa mu sukkiri rek xew mu doog noo feeñal dama ni nun amee nanu cat sëñ sax te loolu lépp ànd gi ànd ak seex doy na ko may boo kenn fii di loolu bu dul woon ak daje gi mu dajeeg Cheikh Béthio mii Serigne Sall def li mu def maanaam kon bis bi nu may loolu kenn ku nekk nun ke 17 avril la tax ñu mën a am loolu bi ngir dajeem ak Serigne Saliou ba mu def ko nii mu ko def bi mu ko ko defee it boole nag moom dama ne seex bi jamono duwut ak ñun kat at na ci waaye ñëpp ànd nag moom Serigne Saliou way seet moo ne ko ñi yow ñi nga àndal lu sa jublu du seeni jublu it sama jublu kooku bu ko jublu ñëpp ànd ak moom bi ñun ñoo ko neex ñun ñii la defal taw feex selok sono noo boole noog moom ñun xanaa xamoo ni loo jàng jàng ba topp ceex bi am na ko la raw ci jàng la da jàppe moo tax mu defe ni moo la fi ba ngay jaay am ku la ko gën a def jàppe la dof defe ni yow kat ñàkk ñàkk dof doo ko tax nga mën a ànd ak ceex bi boo jaay xam-xam da ngay dajeeg ku la ko ëppale ceex loo ànd ak ceex bi ndax xamu ko dimbali wuñ ko di fii rek looy mën a jaay am na ku la ko ëppale te bu bokk jiin taw fii xajiñ booli nit ak ndimbalu Serigne Saliou Serigne Saliou dimbalu nu boole ko roof nu tawfiixam woob man nu andi nu fii daje nag seex dajale nag seex bi boole nag moom ba mu jëriñu li ñu am xam na li nu xam nekkal nu la ñu nekk loolu lépp kesaan la 17 avril waruloo toog ñu ni ci soññi déedéet kenn ci ñun sant ci dalaa war yow nit bi dana man waaw sëriñ bi mos ta woote lu ma tut waa fexe ba bokk ci ñi di tudd naan yaa ko matal mooy tawfeex Cheikh Ibrahima nee na liggéey Sëriñ Tuubaa moom saako la ci partal rek teg loxo mu dem tegut loxo mu dem waaye doom teg leen ci seen loxo dem mu mel ni yéen a ngeen dese sag bi sëriñ bi lu bëgg dana am waaye dimbali nu daa tax ci lu mel nii dina ki soññi nii mu ni ki soññi ndax day sunu njariñ lépp njariñ la Sëriñ Tuubaa mooy njariñu tey jii ak ëllëg waaye nee njariñ li mu doon di saa daf fi bilaa dara ñetti xaaj la moom laay tëjee wax xaaj bu njëkk bi mooy njëriñ li nga xam ne ku ko sàkku am ko ku ko sàkku wut am ko ku ko bañ a am am ko ku ko bëgg am am ko boo duggoon ci sa rondal di làqatu nag bugguma ko li njëriñ ma dana la fekk fekk génne la njëriñ la ko kooku mooy xaaj bu njëkk bi kooku mooy njëriñ xam jami xal wara mooy jaw fan fara mooy waltan xamil xalxa yaaman jëddëgum mbada mooy liikum dikun sarmada kooku mooy njëriñ li njëkk bi moom boo sàkkoo am boo sàkku wut am boo wutee am boo wutut am xaaj bi ki digg bi nag mooy ñi nga xam ne yàllaa leen defal tawfiixu nu bëgg Sëriñ Tuubaa mbaa du jëmbal ko seen bopp ñooñu nag danañ jariñu geneen njariñ gu ëpp doole bu njëkk gi googu njariñ nag ku ku ku defut ni nu def ku yàlla taw fii xalul ñu bëgg sëriñ bi ba jébbalu ci moom doonuñ ci fekk mukk loolu mooy li mu wax ni yàlla na nga defal lil mutaxalliqiina wal mutaxallixaati biya maa yaxbituhum xayruhum wa xayruhum fil xaali wal maali wallaahu alaa maa naqulu ci man sëriñ Tuubaa danañ am ci njariñ loo xam ni ku dul ñoom dana leen ko ñeewe tey jii ak a jëm njariñum bi moo féete kaw ñaari njëkk yi waaye boobu dañ koy sàmm ku ko kon mooy lu mel na siyaare sëriñ bi xam nga ni njëriñ li ci nekk ku du sëñ Tuubaa xamoo ko waaye yaa koy sàmm doo toog sa kër rek ab yoonub siyaar dee déet da ngay wut sa siyaar def sa poos aw ca yoonu kër si dem toog xaar ko ba mu génn te xanaa xamul ne toog ba si bi génn moo ëpp yoon bàyyi ba mu ñëw nga doog a dikk alxuraan nag wala wa annahum sabaru xataa taxruja it lakaana xayran lahum su ngeen doon toog ba mu fekk leen fa moo gën ci yéen ngeen bàyyi ba mu génn ngeen ko fay fekk toog te sëñ bi génn gut nga di ko xaar nee na moo gën ci noonu bàyyi ba mu génn nga doo ko ñëw dégg nga nga dikk xaar ko ba mu ñëw nga raam dem siyaare ko jële ci njariñ la nga ca jëli loola yaa sax da ngay def ay sabab dem waaye doo toog rek di wax waa ji daa bëgg wërsëg tëju ci néegam di wër yaara yaara saabu yaara saabu yii mu tëdd yaara saabu mooy yow mi yore wërsëg bi wërsëgal ko te ki génn tub lalam def na fa ñeent fukki fan ak benn amul ñaari dërëm mu génn fa doxantu dem ba ca àll ba toog ci daal comme que déggoo ma bay ba sama kaw ma dee ci moom rek ñëppaat na yàlla lii a rayee yow daal rayee gaaw gëj borom xam-xam a am sabab soosu defut bu toogoon ci néegam rek na ma na ma guy gi rey ko rey ndax néeg bu amul guy daa dem ca àll ba demul ca daa dem ba ca àll ba fa guy am mu toog ci wetu guy ga doog a ñaan guy gi daal di ko bu demoon nag jub dem te marché ba fa xaalis am boole ko di ko jéem a wut di ko ñaan yàlla tekki mën na ko sabab yooyu la defut moo tax daal dama ci doon soññee rek di ci soññi sama bopp di soññi sama mbokku taalib yëpp ngir lii di ko waxtaanee daa baax ndax di fàttaliku njëriñ yàlla sax daa waxoon ni su ngeen ma bëggee sant dinañ ma fàttaliku fas guróo nii askur ko was guróo nii fàttaliku day a sant toog di fàttali ko waat bis bii ñu nuy soññ dina ko fàttali day suñu njëriñ njëriñ lu muy sàkku la nag faw ñooy sàkkoo njëriñoo njëriñ jëf ko dox ko wax ko ñun daa war a sax weesu noonu da war naa dem ba àdduna sépp xam suñu bis bi mooy lan ba bu jóge ci nit ñi ñoo ne kañ la ak fan la ak naka la yàlla nañ ko yàgg def yàgg am hmm. lépp nga nu dimbali ba kenn ku ne ni ci yéeg ñu ngi ci ñaan sa ndimbal mu daja ceg lu kawe njoxtam daje ceg lu féete ko ak ñu ngi ñaan nga dimbali nu ba xéewal yi ñu daje ak moom ba man di jëf nin ko bëggee ba defee ko sax nun ko xamewul da nga yàgg fi déwén ndey maa ngi lay sant jant koo xam ne bis ne ma gis lu ma gën a war a mën a sant Serigne Saliou ci say wax